jàngal nañ la tiim la saaju ba mu jeex bu dee farata xam nga ko maanaam lam la njëkk a jàngal mooy kii tiim ak kudu tiim bam pare ma jàngal la farataay tiim bañ ca paree ma jàngal la ci lu ñuy tiim bañ ca paree ma jàngal la sunaay tiim bañ pare ma jàngal la nga ni di tiim kon daanaka tiim gi jeex na la sa jëm léegi nag li ko yàq nag moom la ñuy jàng tey ak li tiim man ak li mënut loolu lañuy ñuy jàng nii. sëriñ bi nee na wana waaqiduhu li yàq tiim wala nga ne a wana waaqiduhu li firi tiim kal wudu kem li yàq njàpp la rek lañ la waxoon ne la moo yàq njàpp moo yàq tiim ay dem duus ak ngelawal ak sawa masioog yooyu yëpp mu jàngaloon la boo tiimee ba pare def ko tiim nga yàqu na waaye nag am na du si dooleeku mooy walaatu salaa duñ julli farida taani ñaari farata bi tey mu ci tiim wahidin bay ben wala nga ne bi tay mun wahidin ci ben tim rek nga doré ko non mo gëna yomb comme ñun xali deggu olof nga ne bi tay mu min wahidin ci ben tim wa japp man nga jappal tusuba nga japp bo demé ba jéxé jappal toñu sa bo bëggé julli rek man nga man nga sa julli waye tim mënu lool tay bo tusuba ba takusaan jot defo fi lu yaq japp du da nga saw du da nga dem douce du da ngaa génne match da ngaa génne woo dara dara julli nga ci tusbaar bu tàkkusaanee team boobu moom mënut a julli sa kon benn team mënul see julli ñaari fan waaw foofu daa amee na fi différence ak njàpp dégg farata jaasa dagan na lawu ñeel ko ànd wa masu musaafi mu laal kaamil wa tawaafu dagan na mu wër kaaba ga watti laa wutum dagana mu jàng alquran waaye inna waa ndim yéene ne saalika yooyu wattasala mu jokkale ko bi salaati sa julli ga wala mu yaxru te ginnul al waxtu waxtu kon boo defee tiim ba pare yi ma la jàngal nii nga bëgg ko see sof jëm tiimaat waaw tey dangaa tiim pour julli farata masalan ngaa bëgg ngaa tiim pour julli tisbaar bi nga jullee tisbaar ba pare nga bëgg a naafila ñeenti rakka wala ñaari rakka paré pare jëraatu tim bi ngay to subar gi dang ci yéne ala ne fas na daganal tim julit julli subar nga yéne ala ci nafil ñent raka wala ñetti raka yi nga bëgg a subar moy apparé mooy subar boy booy sëlmal subar rek jógal nga tégal ko si kooku jëru tiim waaw jëru ngay tiimaa dégg naka noonu su fekkonte ni da ngay julli da ngay julli so paré nga bëgg jang alcorane nga tim pour julli yeneel ne suma paree fas naa ne laal téere bi wala sa téere yi moom nga bëggoon a euh, bëggoon a toxal mu am ay kaami nga tiim julli man ngaa yéene ne suma paree laal si kaami bi soo tiimee julli ba pare man ngaa jóg jërul ngay tiimaat de téere yooyu yëpp nga dégagé ko euh, ci li nga xamante ni moo nekk tiim boobu kon tiim pour laal kaamil dagam na <laughs> bu dee ci gannaaw julli la moom jërul nga koy tiimalaat waaye bu dut gannaaw julli moom loola taxut ñuy wax ak wër kaaba ga yow mi nekk màkk su fekkente ni da ngaa dem amoo ndox moo jàppee wala nga am problème am beleesement ba mënoo jàpp tiim moo ca des kon booy wër kaaba ga man ngaa tiim wër kon ñi nga xam ne ñi ngi haji màkka jaaji ak ajaratu yi tabaarakalaa si atti boobu nañ jël yow daal waa ngi wër kaaba ga ñu la ndox amul màkk su boobaa tiimal nga dem wër kaaba ga yaa ngi kaaba ga fekk ya nga yor berasement mu ndox mu ko laal mo nga dem wëri kaawa loolu mën na nek deug nga naka don bu fekkee da ngaa bëggoon a wër kaawa gannaaw boo julee tusubaar ba pare nga tiim ci tusubaar so paré man nga jété teg kawa kaawa ka naka noonu tiim ak jang da nga tim julli ba pare nga ne so paré bu nga jang alcorane su bo wa daga nga jang ci alcorane mo xam kan ñaari isib la ñet isib lo ci bëgg jang rek su bo man ko jang ci tim bo nga def ci fara rek may gënaaw julli ba paré kon yii soo tiimee julli ba pare def ko bëgg cee sof yi jërul nga yi ngay tiimaan booy pare lañ def ko si waaw waaye nag wa tasala bi salaat la wax da nga koy jokkale julli waaye mënoo ne su ma paree julli ba pare euh, julli tusubaar ci tiim bëgg naa naa ne la ñeenti rakka nga julli tusubaar ci tiim pare taxawaal taxawaal ba heure bu la neex déedéet soo bëggee julli ñaar rakka yooyu ba pare da ngay tiim pour pour soqaa mën a julli waaye bu dee da ngaa jokkale julli gi moom boo sëlmalee rek dóor ko si dégg waaw wala ñu waxtu ba tey te bu mu génn waxtu wax soo toogee ba waxtu woo génn su boobaa mën a tullool force nga ci war defaan loolu moom dem sëriñ bi nag nee na wa jaasa dagan na ba tey mu mi naafila ci tiim naafila kulluma lépp la xam ne zukkira tudd nañ ko elal faridati lu du farata waaw nañ ko mooy bëgg nga koo def lépp loo xam ne bëgg nga kaa def ci naafila man koo def ci benn tiim tey bu weeru koor jotoon nga bëgg naafila fukki rakka ak ñaar wala nga bëgg fanaano naafile def qiyamu lay li ba bët set fekk da nga tim tim gogo man nga cee naafile ba bët set saa boo sën wala jogane allah akbar ba bët set kon lepp lo bëgg naafile man nga ko def ci tim ba moy farata xam nga farata moom dañ la waxoon la ben farata ma euh, ben tim mëno ci julli ñaari farata ay bu le tim la mom lo bëgg naafile rek defal lo bëgg naafile defal tay bu fe bu doon juróom imam malik da nga wara fay julli tusbaar war a fay julli tàkkusaan boo tiimee julli tisbaar boo sëlmalee bëgg a julli tàkkusaan da ngay waaye bu dee naafila la moom boo tiimee julli sëlmal jugaatal sëlmal jugaatal sëlmal loo bëgg rek kolu ma sukkira loolu la si jublu mu ne waman sala ku julli alisa gee ba tey mu ci tiim xaama na jóg li safi jëm safa wala wattre ak witar baax daa gannaaw gee gi men xëy de taaxel ci dóor mu koy yéexee su fekkee ni dangaa tiim bo paré nga bëgg def sawa witar boy seulement ci géej gi rek jugal rek ngay allah akbar def sawa witar mo dal di jeex kon bo timalé géej nga paré bëgg def sawa witar jokkat ko ci rek waaw jok ko ci rek dang ko ci euh, dang ko ci seusalé comme niñ ko waxé waaw jëru ko mëna dégg ay bu yàggee nag soo ko bëggee da koy tiimala mune wa man tayam ba ku min janaaba rin ci si janaaba mooy bayee koo si janaaba wala nga ne ànd ak janaaba firee ko noonu sax mooy gën a neex a dégg min janaaba di ànd ak janaaba falaa budda mën da ñàkk min lii de yaa mu yéene ko mag ñi ñoo koy firee falaa budda déet jaas waaye ñun nag xamuñ luy jaas loolu mënta jaas boo ko waxoon xal yi xamuñu waaye nag falaa budda mënta ñàkk waaw min nii yaa ci mu yéene ko waaw mooy yow dangaa yore janaaba nga war a sangu amoo ndox waxtu julli jot doo toog de ba am ndox soga mu julli boko defé da ngay am bàkkaar noy def da ngay tim julli fekk sax sa googu waye da ngay yene janabu julli nga xamne nga ne fa zayne da nga tim and ak janab da ko yéenaale sa xol kon tay bu doon yor nga janab da doon tëdd nelaw génn sey man yu génn ci yow wala nga sey sa jabar bëgg sangu ndox amul waxtu fajar jot na ndox amul wala waxtu julli jot na ndox amul nga ragal ne bala ndox am waxtu dana genn nga tim pour na a julli ah kon su boy tim jana bu jooju nga xam ne yaa ngi ànd ak moom sàmmoo ko da nga yéenaale fasani tim tiim ak ah, kon wala yexilu taqiru salati li adami taharati ah, wa man faala zalika faqad asa rabbuhu man na jang ko dang da ko jang ci karam serigne bi daf ne du dagan yéexee julli pour ñakala manam ñakala kesse kesse motax kese kese ñu julli nena lo loolu dagan soo ko defee mooy nga yalla comme yow do tok nga ne comme sangooguma guma duma julli genn julli dede waaw bu dee amo ndox waxuma man nga tok di tiaxande de bu de am nga ndox mom waxuma say wax bu de amo ndox la wax ah wala bok am nga ndox da nga blessé ba mënu wax laal ndox mi booy tim di julli bu jooju andon ak yow su boba dang koy yinaale ay ah, bu dee ko yor ndox la baña a ji bu timé anak ak janaabam jooju day fond dara dara defu ko foofu jamu yalla yàlla kon fo la buntu bi jexé dégg kon daal tay loolu la jangal ne la li yaq tim mo la yaq hem ben tim julli ñaari farata ku farata dana dagan nga naafile ci ku farata dana dagan nga lal kaamil ku tim julli farata dana dagan nga wër kaaba ku tim julli farata dana dagan nga jang alquran waaye yooyu yeb day fekk na yene nga ko sa te nga jokkale ko ak julli te waxtu wax leer na mu ne la dagan na nga tiim nga tiimal naafila lépp loo bëgg a def ci naafila rek nga tiim tiim benn tiim def ko waaw waaw nga tiim benn tiim def ko waaye farata moom mënul loolu mu ne ku ji géeye ci tiim dangaa tiim julli géeye ba pare bëgg a saa witar jógal nga jox ko si bu ko yéexee ku tiim ànd ak janaaba nee na force nga yéenaale ne fas naa ne tiim ànd ak janaaba jot kon tey lii moo nekk darsu bi ma bamtu le firi ñu yem foofu ba suba sëriñ bi nee na wana waaqidu li yàq tiim lii firi tiim lii toj tiim boo ko firee baax na kalu du kem li doon yàq njàpp la lii kay mooy walaatu salaa duñ julli faridataani ñaari farata bi tayamu min waaye di ci benn tiim waman tayamama ku tiim li farida ci farata jaa sa lawu ñeel ko an nawaafilu naafila baax daa gannaaw farata dagan na wa masu musaafit dagan na mu laal kaamil dégg de wa tawaaf dagan na mu wër kaaba ga wattilaawatu dagan na mu jàng alquran inna waa ndem yéene ne saalika yooyu mu wax watta salaat mu jokkale ko bi salaati sa julli ga te walam yaxruj te génnut al waxtu waxtu loolu leer na mu ne